Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf Aminata Touré mi ñuy tuumal ak lii ko jalgati ca conseil économique social ak environnemental weddi na ko ba mu set wecc yëral xët mu njëkk la quotidien premier ministre u Sénégal ba woon njiital conseil économique social ak environnemental ba woon ab communiqué la génnee ngir da ca dàq tuuma li ñu naan ab sàmm bu bëggee rey ab xajam da koy jiiñ ràmmul loolee moo fi nekk waaye a gàkkal ak di seet nu ñu mën a suulee waxi rapportu yi Mimi Touré ne bu dee dañoo bëgg lu leer rek nañu càmbar doxalinu mboolem ñi mës a jiite conseil économique social ak environnemental doore ko ci Aminata Tall mi ko njëkk jiite ba ci Idrissa Seck mi ko jiite jamono ji ci communiqué ba Le Quotidien nee nañu Mimi Touré dem na ca ba cay fàttali keroog ba ñu wooloo Macky Sall ci bu plateau ci xaalisub Taïwan bu ñu ne woon da koo ngembal réew mi quotidien bind ci xëta bu njëkk ne Mimi weddi na ba tëdd ko xoqatal ak bëgg koo xupp moo tax ñu bëgg koo waxi détournement waaye moom ginnaaw bandang l'observateur nañu bukki bi màttoon Idrissa Seck màttoon fi Khalifa Sall mi ngi yeeru Mimi Touré inspection générale d'état gi ñu ne moo ko épinglé yéene kay di l'observateur instrument de guerre contre les ex alliés noonu la ko tuddee ci xëtamu njëkk maanaam jumtuwaay west jëfandikoo ngir di ko xeexee ñi àndatul ak yow Alioune Ndiaye dib journaliste doon jëfandikoo ngir ay combat politique source mi defub gëstu ci ñi ñuy jëfandikoo fonds sociaux environnemental mi ngi ñuy wax ne dara ca leerul ndax bu xew amee moo xam xewu bànneex la wala xew naqar délégation ba fa conseil économique social ak environnemental di yabal bu ñuy dem xaalis bi ñuy yóbbul ko xewle ca loxoy secrétaire général ba ca la ñu koy teg ku dul secrétaire général ba ak daaf ba amul keneen ku la mën a wax xaalis ba ñaata lay doon source nañu li mu jur nag moo di ba fi mu nekk ni mbindeef mënu laa li conseil économique social di génnee ci xaalis jëm ci wàllu ndimbal nan la toll diggante Alioune Ndoye ministre environnement maire bu Dakar ak kii di Barthélémy Dias diggante ba neexatul journal L'Info nañu ab leetar bu tàng jër la Alioune bind di ca ñaawlu ak a ŋàññi ni ñu tëralee budget bi maire bu Ndakaaru nee na lépp ci xaalis bu maire bu Ndakaaru bi maire Ndakaaru di Barthélémy Dias moo cay gis boppam waaye du askanu Ndakaaru ne Barthélémy Dias dafay noose xaalis bu maire bu Ndakaaru ne am na genn wàllu milliard mu di 500 yu mu fas yéene ñu ne lu toll ci 1 milliard 586 millions ngir ay fête ay réception ay frais hôtel ak Ndakaaru Alioune Ndoye na ca lettre ba bit sa mairie bu Ndakaaru bi toll ci milliards bi ci Barthélemy Dias génnee li mu war annoncé moo ki ñooñam 31 pour la ñu ci génnee ngir extension ak entretien éclairage public bi di lampi mbedd yi Alioune Ndoye ne li ci doy moo di marché boobee entreprise ba ñu ko jox fukkeet ak juróom-ñeent ci ren at mu nekk même entreprise bi la jox marché bi nee leen it na ngeen góorgóorlu ba millions yi ngeen ne da koy génnee ngir fexe ba xaalis bi dem ci ñi ko yellool la si bind na meerub Dakar Plateau di Alioune mi ngi tucc tuccee Barthélemy Dias anki dina xamal ñu ne budget mairie bu Ndakaaru bi toll ci juróom yu manqué ñaari téeméeri millions ubbi nag fantasiro ci diggante Barthélemy Dias ak Alioune Ndoye Ousmane gàngooram ci mbeddi Ndakaaru yi Sud Quotidien nañu ginnaaw waa société civile gi wàccoon ca place de la nation defoon fab rassemblement bu ñu doon nañu moo di troisième candidature bu Macky bi ak mal gouvernance gi ñu ne moo am ci réew mi ak ñi ñu tëye ci kaso yi te ñu jàppe leen ay détenus politiques Walf Quotidien nañu ñoom waa Yewwi Askan Wi démb lañu ko xamle bi seen conférence des leaders doon jano ak taskatu xabaar yi nee nañu àjjuma juróom-benn fan ci weeru janvier danañu defub rassemblement ca place de la nation ku mu neex ak ku mu naqari Ousmane Sonko mi ko wax journal Le Mandat xëy na journal bi nee na ñu bari na ay lëj-lëj ak lu ci lënte xelu askan wi ndax bari na ay kilifa yuñ ciy tudd ñu ci mel ne maître Pape Sow ak maître Dior Diagne ba awakaay Ousmane Sonko yi sax doon sàkku ci yoon mu woolu leen le dem nañu ci it bay tuumal kii di maître Dior Diagne ne moo woon Adji Sarr maanaam moo ko dëkkaloon ci lu mat fukki fan ak juróom ci jamono ji mu porté woon plainte Ousmane Sonko yéenekaay bi nee ñu loolu wax la jooj Adji Sarr na ko ndax nee na xamul maître Dior Diagne ci aadama xamu ko ci awa ñi ñuy wax ci dossier bi muy Adji Sarr di Ndeye Khady Ndiaye di Sidi Ahmed Mbaye ba ci docteur Gaye maître Dior Diagne mësu cee gis kenn CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Touba Darou Salam Karo